asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bakk jullit yi dellu nañ ci seen tafsirul qur'an bi nga xam ne moom la ñu baaxoo ànd ak yéen ci diirub weeru koor bi mu mel ne ñoo ngi woon ak yéen ba tey ci suratu xasas di ànd ak yéen di nafar aayaat yi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala doon ci nettali yonantu bi alayhi salaatu wasalaam lenn ci histoire yonantu yàlla Muusa xam ngeen ne ñëwoon nañ ba ci ba mu nekkee ci yonantu yàlla soxay bu ba war faa jóge nag war a delsiwaat misra ci firxawna ak ñoñam ña tey ayaat yi ñuy mooy quarante quatrième aya ñent fukkeelu aaya bi ak ñeent borom bi subhaanahu wa taala nag mel ne ku taxawandi ca nett li histoire ba waaye ñëwaat nag di wax yonantu bi alayhi salaatu wasalaam ci aayaat yi xéewal yim ko defal ak nettali gim koy nettali yonantu ya jiitu ak xew-xew ya te moom fekkewu ko borom bi nag di ko wax ne ko loolu li tax ñu la koy defal nag mooy yow da ngaa nekk ab ndaw bu bokk ci ñoom loolu moo tax ma di ko nettali waaye yow fekki ko woon loolu nga mën caa dégg ne ba ci ñun ñii sax kenn ci ñun fekki ko woon waaye yàlla ñu defal tawfiq ñu gëm yonantu bi alayhi salaam gëm li yàlla wàcce ci moom subhaanahu wa taala loolu moo ñu may bi ko yàlla xamalee alayhi salaatu wasalaam yonantu bi baaxewaat ñu ko muy alquranul karim ñu man caa xam la xewoon ci ñoom moo tax yàlla defal nañu tawfiix ñun xeetu yonantu bi alayhi salaatu wasalaam ndax yàlla nee na bu ëllëgee ba yeneen xeet yi taxaw bëgg a weddi seen yonantu ya ci kanam yàlla di wax naan a ñoom kay waxuñu woon ñu dara yonantu yooyu kay ñu waa wóoruñu ñu woon woowuñu ñu woon ci njub gi yàlla may na xeetu yonantu bi alayhi salaatu wasalaam tawfiix joo xam ne ñooy taxaw daal di weddi loolal ni déedéet ax ah, kay yonantu yooyu kay ñëwoon nañ ci yéen wax leen dëgg ga wax leen njub yéen lànkoon te loolu suñu alquran ji jàngaloon nañu ko kon loolu tawféex la eh, moo tax daal yàlla def nañu ñun xeetu alayhi salaam ñuy xeet woo xam ne ñoo gën ci xeet yi jiitu woon kon loolu rek ak sant yàlla bu baax te sant ga dara jiituwu ci rek jaar ci li yàlla bëgg waaye wattandi ko lim ñu tere moo tax sama borom ne wama kunta nekkoo woon yow Muhammad bi jaanibil xar bi ci wàllu soowu ga nekkoo wone euh, ca sowu jant ba fa nga xam ne fa la mbir yi xewoon moo tax mu ne ko isradey naa ba jeexal ne euh, ilaa Moussa jëm ci Moussa al amra mbir ma maanaam Moussa sax ga mu saxoon fa yonent yàlla Suhaybu euh, ak la fa xewoon toog fa juróom-ñetti atam yaag fukki at ya yooyu yëpp ba nami dem yooyu yëpp yow fekki woo ko woon waaye nag ñun yàlla ñoo la dimbale moo kunta nekk woon sax min ash-shaahidin bokk ci ñi ko doon fekkee mooy ñi ko seede walakin na wante ñun yàlla anshana sos nañ qurunan ay maas muy ay seekal euh, jamxu la xarnu mooy maas qurunan euh, mooy jamxu bi fata taawala ba yàgg alim ci ñoom alxumra dund ba ma kunta te nekko sax yow alayhi sax fi ahli madiyanna ci ñooñ madiyanna waa Madiyaana nekkoo fa woon ba fekk ya fa xew waaye tatloo danañu jàngat dana la danañu la jàngatal alim ci ñoom ayaatina suñu aaya yi kin na wante ñun yàlla kun naa euh, nekk nañ di la def mursalina nga bokk ci ñi ñu yónni mursalina nga bokk ci ñi ñu yónni wa kunta te nekk woon sax bi bi tuur ca wàllu tuur sina isnaa day naa ba ñuy woowee fekk woo ko woon walakin waaye rahmatan loolu li tax yàlla di la ko nettali rek rahmatan yërmande la min rabbika bu bàyyi ko ci sa borom li tunzira pour nga waar xawman aw nit ñu ne mooy waa xuraysin nit ñoo xam ne ma ataahum masu leen a dikkal min nadirin jenn aji waare min qablika lu la jiitu laxaluhum amaana ñoom boo leen waaree yatadakkaruuna ñu fàttaliku ba mën a gëm li tunsira xawman boroom xam-xam yi dañuy wax ne eh, du du du du boo ko defee jamxu kon dafay dàq li ñuy wax naan am na yonantu yu fi jiitu woon nekk arab kon yàlla du wax ne eh, ma ataahum min nadirin kon daal dañ ca namm ñenn ñi dañuy wax ne dañ ci namm rek eh, kalimatu xaw xawmu muy waa qurashin ma ataahum masu leen a dikkal min nadirin benn ajiwaare min qablika bu bu bu la jiitu laxalum amaana yow ci yónni giñ la yónni dikkal giñ leen dikkal ngir teg leen ci yoon yatadakkaruna ñuy way fàttali ko yàlla subhaanahu wa taala buur bu baax la buur la boo xam ne ñaari mbir a ngi yoo xam ne mësul alag aw nit lu dul jëflante na ak ñoom loolu it képp ku jiite war ngay doxe doxin woowu ku yilif yàlla subhaanahu wa taala musta alak benn dëkk lu yónni na ci ñoom ab yonant Euh, yàlla subhaanahu wa taala musul alak benn dëkk boo xam ne ba mu leen di alak ñëggam da dafa boole ak ñoom alak leen moo tax mu ne walawla an tusibahum budul ko nag seenu euh, bu nëmutoon mu jot leen musibatun ab musiba bi ma xadamat ca la ñu jiital ay dim seen loxo fa yaquluna kon dañuy wax naan rabbana yow suñ borom lawla arsalta lu teewoon nga yónni ilayna ci ñun rasulan ab ndaw fanata mi boo xam ne kon danañu mën a topp aayaati ka sa aay yi war naa ñu nekk minal muminina ñu bokk ci way gëme yàlla nee na bu fekkonte ne daf leen a jot maanaam musiba damaa jékki-jékki rek leen dañ mën nañ maa wax ne ma ko juum nga ndax kat yow dangaa jékki rek alal ñu alag ñu waaw lu too lu lu teewoon nga def ñu avertissement maanaam yónni koo xam ne day ñëw bu ñëwee wax ñu jàngatal ñu say aaya ñu topp ko mën a gëm yàlla nee na su ma jékkoon rek def ba seen kaw lii lañ may wax waaye nag ba ma yónnee ab ndaw fa lamma jaahumul xaqu ba nga xamante ne dikkal na leen moom ak dëgg maanaam andil nañ leen ak dëgg min hindi naa gu bàyyi ñun yàlla xaalu dañoo wax rek ak ñoo dëgër bopp daan ne law laa utiya lu woon mu dikkal ñu mislama utiya Moussa comme la ñu Moussa andiloon waaw bu ñu leen andilee dëgg ñu ne yonent bi daal moom daal andiluñu comme lañ Moussa andi woon yàlla ne waaw awalam yakfuru xanaa weddi wuñu woon bi maa utiya Moussa ca la ma joxoon Moussa <laughs> gisal loolu rek waaw yàlla nee na subhaanahu wa taala euh, bu ñu leen andilee dëgg gi ñu ne waaw bu ñu andiloon comme lañ andiloon Moussa de ñun ñu gëm ko te Moussa ñëw na yàlla nee na gëmuñu ko moo tax mu ne ñoom daal li ba ne rek dañoo nekk ay ay ay weddikat rek moo tax mu ne awalam yakfuru xanaa weddi wuñu woon bi maa uti Moussa ci lañ joxoon Moussa min qablu lu njëkkoon xaalu ñum daal dañ daan wax naan euh, Moussa daal sihraani moo moo ko xaaroon ñaari njabarkat lan yoo xam ne tazahara dañ doon jàppalante dañ doon dimbalante ci seen njabar ga Moussa da koy dooleel da koy dimbale Haaroon da koy dimbale waxaalu ñuy wax ne innaa naka ñun daal bi kullin ci képp ci ñun kaafiruuna way weddi lañ ko boroom bi ne ko xul waxal yow muhammad ne fatu andi leen bi kitaabin ci téere min hindilaay bu bàyyi ko ci yàlla yéen daal bu fekkee yéen a wax dëgg andi leen ñu ab téere bu bàyyi ko ci yàlla boo xam ne ahdaa moo gën a jub min humaa ci ñoom ñaar kon day su ngeen ko defoon ba ngeen kon ngeen xam ne dëgg rek laay wër kon atabixu danaa ko topp in kuntum dem nekk ngeen saadiqiina di way wax dëgg fa in lam yastajibu ndéem euh, wuyuwu leen laka ñeel la faalam xamal ne ndéem wuywuñ laka ñeel la faalam na nga xam ne annama yatabiuna naka la ñuy topp daal ahwaahum mooy seen baal rek suñ le wuyu si wutit bàyyil xel ne ñoom daal dëgg ñoru leen waaye nit yi topp seen bànneex lan waman képp koo xam ne adallu sànku na mi ma nit tabaa mooy ka xam dafa topp xawaahu bànnee xam bi xëy na oddan ci lu ak njub mina laahi gu bàyyi ci yàlla te kat ina laaxa yàlla laa yahdi du gindi ma nit ñi nga xam ne alzaalimiina way tooñ lañu moo tax ab tooñkat yàllañ ci yàlla musal ndax ab tooñkat yàlla da koy euh, mbugal ab tooñkat du tegu ci aw yoon euh, ab tooñkat du mucc moo tax tooñ képp ku koy def yaa ngi ci dayab dansé borom bi ne wala xat sa dëgg-dëgg wasal naa àggale nañ lahum ñe leen alxawla wax la wax ja laxalum amaana ñoom sax yet dakkaroon ñu way fàttaliku su ko defee nag ñoom ci waa ahlu kitaab am na ci ñoo xam ne yàlla defal na leen tawfiqu jotoon nañoo gëm leen ci ahlul kitaab ca téere waaye bi alquran ñëwee am na luñ ci jot gëm mën nga caa jël rek misaal ku demee xam Habla ibnu Salaam nga xam ne moom gëmoon na tawraat waaye bi yonent alayhi salaam ñëwee mu fekke ko Euh, dafa ne kiikat kat dinaa ko gëm waaye bala mu koy gëm dinaa xool ndax la jàngoon ca tawraat alaama yooye mandarga yooye moo feeñ ci moom Muhammad ibnu Abdullah wala déet waaye muy xool di xool di xool di xool di xool bam yëpp mat euh, bokk na ca alu kitaab ay question yu bëree bëree bëri yoo xam ne euh, pose woon nañ ko yonantu bi alayhi salaam am na ci yuñ ci jotoon na jàng ca tafsir ya ko jiitu woon waaye yonantu bi alayhi salaam tontu leen te fekk euh, mu dëppoo ak nañ ko jànge woon ñu ne kon kii mooy waaja moom la suñ borom di wax ci aayaat moo tax mu ne alla si ne nga xam ne aatay naa humul joxoon nañ leen kitaaba téere min xabli yi lu jiitu hum ñoom bihi ñoom bihi ci moom daal yu um noonu way gëm lañ way saa yut laa ndem jàngeef na alem ci ñoom xaalu dañu wax naan aman naa ñun dey gëm nañ bihi ci moom innahoo nag moom daan alxaqu mooy dëgg gi min rabbinaa gu bàyyi ko suñ borom inna kunna ñu daal nekkoon nañ min qablihi ci li ko jiitu muslimina di way wommatu di way tuub dugg ci lislaam borom bi ne ulaayka gaa yu taw na def na jox def na leen jox ajurum sinu payoor marratay ni ñaari yoon bi ma sabaru ca sabaru ca sababu la ñu muñoon wa yadrauna yàlla nee na ñoom ñooy ñi nga xam ne dañuy jañ bil xasanatin te lu rafet sayiatu lu ñaaw dañuy jël lu rafet di ko dàqe lu ñaaw wa mimma rasaqnaahum te lépp lu leen yàlla wërsëgal ci seeni alal dañ koy Euh, na dañ koy dépensé waat nañ ko financé ci yoon yàlla subhaanahu wa taala ndax ñooñu yooyu garaat rek la am wala yooyu melokaan mu ne déedéet weesaa samihoo bu ñu déggee laxwa ay caaxaan axrado ñu dem ñu dummoyu xan ko waxaalo ñu naan euh, waxaaloo ñu wax naan lanaa ñeel nañu ahmaalunaa suñuy jëf wala kumte ñeel na leen yéen ahmaalukum seeni jëf salaamun jàmm daan aleykum yàlla nekk ci yéen laa nabtaqi ñun dal duñu sàkku aljahilina way déet ayaat bi boo ko déggee eh, ci ngay wartandikoo ci xew-xewu jamono lu bari ca ngay sore misik ca ngay sore lu ci aju ca ngay sore eh, théâtre ya amul la ci aju ca ngay sore film ya amul njëriñ ca ngay sore débat politique yi nga xam ne yàq la ay intérêt yu jëm seen bopp la maanaam wax joo xam ne rek waxi caaxaan la waxi mbóosóor waxi comédien wax yu baree baree bari bari aay bi dëgg dëgg moo lay wan sori la lépp lu am njëriñ yàlla neen ñooñ ñooy ñooy dëgg dëgg julit nga xam ne fu ñu dégg ay waxi caaxaan rek aharadu anhu wax joo xam ne bu ñu ko waxoon buñ ko doon buñ ko débat trente minutes wala une heure de temps wala deux heures temps yow mi toogoon di diglu soo paree doo am loo ca dolli ko ci sa doo am dara loo xam ne am nga mën nga ko cee dolliku mu jëm ci sa tiirab yiw yàlla nee a julli digg nag bu déggee wax ju demee noonu da koy wël day wëlbatikoon ko ginnaaw ne ah yéen daal seen jëf yéen la ñeel ñun suñu jëf ñun la ñun nag du ñu topp way réeree te gis nga jamono bii ñu toll bari na ñoo xam ne ña ñu topp rek mooy ñoo xam ne ñu réer lañ ñu alku lañ ñu sànku lañ xamuñu yoon wa jaaruñu ci yoon wa te fasuñu ci yéene jaar waaye yàlla jox na leen dara ci as alal ba ñeen ñu topp leen loolu sax nañ ko jàng ci biir saar wi ca kanam ca diggante xaaruna ak muusa moo tax mborom bi ne wa isaa bu ñu déggee laxwa ay caaxaan aaradu ñu dummoyu xan walif ko waxaaloo ñuy wax naan lanaa ñeel nañu ahmaalunaa suñu jëf walakum te ñeel na leen ahmaalukum seeni jëf yéen salaamun jàmm aleykum yàlla nekk ci laa nabtaqil jaahilina ñu daal du ñu sàkku bay bokk wala ñuy nekk ak ñi nga xam ne way réer leen ayaat bii ci topp borom bi subhaanahu wa taala mi ngi ci wax yonentu mi alayhi salaatu salaam ak diggante maamam wala bàyyi taxam bi ko yoroon di eh, Abu Taalib nga xam ne moom ak baayam Abdullahi ñoo bokk baayam Abdul Muttalib Shaybatal Hamdi mooy seen maam jàngoon nañ ko ca taarix ba leeraloon nañ ca lu yaatoo yaatoo yaatoo yaat xam naa bari na ñoo xam ne topp ko ndax taarix ba dafa xawoon a yàgg waaye abdul muttalib moo ko moo jur abdullahi moo jur abou taalib abou taalib seen moo jur seydna aliyu karamallahu wajhahu ndeysaan moom dafa guddoon fan nag waaye bi mu demee bay génn àddina eh, yonentu alayhi salaam ñëw ba ci moom ku ku ku fonkoon yonentu bi la ku ko bëggoon la ku ko yar la keroog ba yonentu bi alayhi salaam ba maamam abdul muttalib di génn àddina dafa jàpp ci loxoom ne ko dénk naa la sa doomi mbokk mi dénk naa la sa doomi mbokk mi eh, Abu Taalib euh, yor ko yor goo xam ne moom la gënoon a fonk sax ci ñoom Seydina Aliyu mbokkam ya moo tax keroog ba Abu Taalib di dem saam di waaj di takk yor gileemam nga boobu yonentu mi nga am fukki at ak ñaar ñëw ba tolloo ak moom jàpp ci nos ko gileem ne ko yow sama bàyyi ndax da ngaa bëgg a dem bàyyi ma fii mu ne ko déedéet yow Muhammad ibnu Abdullah yow fu ma jëm ñooy ànd du dooma mën a sori mukk xesa bu guddoo gudd gudd la xam naa jombul beneen yoon danañ ci gën a leeral ndeysaan bi mu demee bay génn àddina nag yonte xal saa saa ñëw ba ci moom ne ko li ma lay ñaan daal mooy nga wax rek ne laa ilaha illallah baat boobu rek laa bëgg nga wax ko ndax moom bul fàtte ne lim doon dund lépp nekkoon ak yonte xal saa salaam fekke risalaam nga ak nubuwaam nga jotutoon a dugg ci diina ji waaye ku mënoon a nekk ak yonente xal saa salaam la mësuñu réeroo daan ko défendre ci lu bari waa Màkka ruuse ko muhammad ibnu abdullah wala rusé muhammad bàyyi taxam bii nga xam ne mooy abu taalib ñeme wuñ koo laal buñ gisee ci moom lu ko naqari ndeysaan dañuy ñëw eh, di ko di ko di ko di ko kalaame ndeysaan loolu moo tax yonent al sa sam na métti woo xam ne keroog bi abu taalib mi génne àddina xadijatu génn àddina ña ko daan défendre ñëpp génn àddina keroog day fan yooya diir bu gàtt boo demee ca Seydi Hadj Malick ci xilaas ba sax leeral na ko fa ca la tàmbali nag di dundaat yeneen jafe-jafe yu gën a tara tara tara tar bañ na ko jotoon a topp sax ca sababu loolu tax na ñu daal di gàddaay dem xabasi ci annajaasi waaye mu ne ko baatub la ilaha illallah rek laa sàkku ci yow su ko defee ma man laa layal fa kanam sama borom subhanahu wa taala moo tax bari na mag ñi dañu gëmoon euh, dañu gëmoon seen kàddu waaye ñoom diine bu njëkkoon Eh, mag ñi fi newoon maanaam dañoo fonkoon la seeni baay newoon ak seeni maam doon na dem sax ba di ko bëgg wax waaye ab rambaaj akub saytaane akub jaxasekat yal nañ ci yàlla musal Abu Jahal nekk ca wér ga naan ko ah yow Abu Taalib xanaa ñemewoo daal dund ba toll nii nga toll at yii nga am nga am ko say baay say maam seen diine ja nga bëgg ko faa bàyyi naan yaa ngi topp diiney xale yu ndaw yii bàyyi sa diine yi baay Abdul Muttalib ndax danga bëgg a bàyyi diine yi sa baay Abdul Muttalib topp diine yi gone yi di ko ko wax rek di ko ko wax rek wax nañ ne ba mu daal di wax ne man daal maa ngi faatu ci diine yi Abdul Muttalib am na ñu fa toogoon ñu wax ne dégg nañ mu wax ne laa ilaha illa waaye Muhammad ibnu Abdullah yonente alayhi salaatu salaam nee na man day wax dëgg fa yàlla dégguma ko ah, kon yonente bi bëggoon na mu gindeeku tegu ci yoon wi yàlla ne ko déedéet nag yow Muhammad yow man ngaa bëgg nag nit mu tegu ci waaye man yàlla may teg ku ma neex ci njub ki moom la aayaat bii di jàngale moo tax yàlla daf na ko i naka yow Muhammad laa tax di déet ngay mën a gindi man ahbabta ku la neex koo sopp koo bëgg rek mënoo ko teg ci yoon wi wala walakin allaha wante yàlla di mooy gindi man yashaa ku ko sopp waxumam te yàlla axlamu mooy aji xam moo gën a xam bil muhtadina ci anakan mooy gindeeku ba tegu ci yoon wi kon gis nga baax ak mbaaxal lépp yàlla subhaanahu wa taala moo ko moom moo tax ndeysaan mag ñi dañu daan ñaan bu ñu amee njaboot ak lépp lu ñu njaboot rek ñu ñaan yàlla jubal ko te xam ne njubug seen doom ya wala la ñu njaboote yëpp ñoom sabablu rek lañ ci am waaye yàlla subhaanahu wa taala nag mooy baaxal ku ko sob moo tax yàlla ne ko innaka nag yow daal laa tahdi déet ngay mën a jubal man ahbabta koo sopp walakin allaha wante yàlla yahdi mooy jubal rek man yashaaw ku ko soob uhum ne yàlla alam mooy moo gën a xam bil diina ci ana ñan ñooy gindeeku ñan ñooy jub tegu ca yoon wa